قد أقام ياتي بعد لأرباب بلاغات يا ألا جبتم فهرا لعوزكم رودا عنا ربي ليلة الدلالات خسان مدحكم شيخ ديري وحبكم روعي رفاعي وريعان وروعات والمال مالكم cheikh wazaatu abdukum wa suuku zikrukum fi kulli saati cheikh Tidiane. waaye ala kulli xaal yu mel noonu dañ ko war a gaawe bikrin salaatin maa jihaadayn julli lu ñu war a gaawe la ndax kóllale rek gu dox sa digganteeg sa borom saay jotee rek da ko war a dem nga joxe ko léeg-léeg nag nga gis ñu sàggan ba ne damay xaar ba ci kanam tuuti xanaa xamoo ne julli kóllëre la boo xam ne moo dox sa digganteeg sa borom parce que julli inna salaata kaana alal muminina kitaaban mawquuta dafa am ay waxtu yuñ ko war a def bu jotee rek da nga war a dem nga joxe ko kooku warul xaar ngay négondeku ne xaaral ma xaar ba ci kanam wala déet moom cinq daal lañuy julli tàkkusaan ci lum la mënti fekk rek bu waxtu wi jotee rek da nga war a dem nga joxee ji ko ak loo mën a ne rek lu mu foor foor ci yow te heure bi jot na demal nga joxe julli xaw ma kan la ci mag ñi bu ma juumul sëñ Tuubaa la xaw ma kan la ci ñoom waaye nee nañ heure julli dafa jotoon waaye radiyallahu anhu xaw ma daal jàppatuma heure julli fekk ñoom ñu ngi ci liggéey julli bi weesu fekk nekkoon nañ ci sàkket ba sàkket lu bari bi mu ñëwee laajte ne leen bi bi ñuy nodd waxtu yi fu ngeen tolloon ñu ne ñu ngi tolloon fii mu ne la ngeen liggéey yépp dindiwaat leen ko kon ñooñu ñu sàmmoon kóllëre lañ seen seen borom kon kóllëre nekkul loo xam ne kon nañuy bàyyi xel waxtu yi bu jotee ñu koy joxe ci waxtu yi parce que loolu borom subhaanahu wa taala tuub bu jotee rek tuubal maa jihaadayn ñaari jihaad yi nag mooy mooy war a xeex ak moom ba rey ko ci ay razaya ci ay bakkaar ci lu mu war a def xam nga léeg-léeg nit ki wallahi doomu aadama yi da gis koo xam ne boo ko gisee dangay jàpp ne nit ku yiw la nit ku baax la nit ku jullite la nit ku dal la waaye bu wéetee rek bakkanam mën ko bu wéetee rek bakkanam mën ko loolu kenn ku nekk ci ñun war na xam ne loolu day am والله ليغ ليغ بن خاو خاو دانا ام سي نيت داغي خامني لي داكو ريت واي دو سي كوم لول ناك شيطان موي ترافاي نون نيت كي داي فك جوليت بو باخ بو ماندو بو دال بو بولا لول دالاتي دلوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوه الا بالله bu ko defee yàlla mën na la fankal loolu yépp ndax doomu aadama da waaja waxoon ne wa minhuma taqtahimu l fa in zuqta janaahu in zaqa asban fi laa borom duray di na ci garab bëri ci garab gisee dañoo naat lool rafet waaye cëy boo ñamee doom bi lu ko gën a wex amut day am ci nit ñi ni muy amee ci garab yi noonu lay amee ci nit ñi am na nit koo xam ne boo ko gisee danga naan waa ji de tekkiwul dara fekk te waa ji nitu yàlla bu mag a ngi nii rubba si tam rey ni axbara walaw ak bëri na nit naka sadul noonu nga foog ne waa ji teg allahuma rek yàlla ne amin bu noon yaa allah rek yàlla woyu ko kon am na ñoo xam ne ñu jara bàyyi xel lañ loolu nag pour nga ràññee ko ci nit ñi il faut nga nekk nit yow itam nit ku nite mu ngay fanaani ca malawul aala bu ko defee rek doo trompé wu ci nit wali yàlla dana yàlla yi tamit dana feeñu ci koo xamante ni tey mu ngi sañse ni nduur mii ni mu sañse waaw parce que lii mbubu la rek waaye mbir mi fii la xalbu bi loolu mooy nit doomu aadama léppam xol la rek kon du ci jëmm ji ngay gis nii mais ci xol bi la kon koo gis rek jàppal ne kii daal moom moom loolu moom doomu aadama bu ne war nañee bàyyi xel moo tax ki namm yàlla moom loo ko mënti defal yàlla rek moo tax gars yi buñ tollee fi ñu war a toll booleen leen joxee lekk ñu ne lekkuñu parce que boobu du leen suur boo leen joxee naan ñu ne naanuñu parce que mënu leen mandi li leen mën a mandi mun leen suurloo mooy tudd yàlla ki ci ñam tuuti xam na ko boo takkoog yàlla léeg-léeg nga dégg ñu ne waaj dootoo mën a lekk dootoo mën a naan parce que lii sa naan ak sa lekk la ko mooy tudd yàlla bi kon nañu fexe dëkk kon neen nañ ko feeñal caaxaan baaxut wa ni'matin tashkuruha xiiwal nañ ko wax wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis xiiwal ji la yàlla defal mais jëwriñ danga ko war a waxtaane fi nga tolloon re daaw tolloo fa ren kon danga war a sant yàlla ci loolu nit ñi nak dañuy jaawale alhamdulillah ak shukru lillah yëpp lay firi waye hamdu mom sante mom mu ngi nekké sante yalla santiala, bo juddo rek war nga sante yalla parce que juddu gi rek sante yalla la jeuf juddu gi rek sante yalla la lu ci ko nak da nga war def shukru kon dañ war di santiala yalla sa su ne wa hikmatin tuzhiruha gis nga nit ku nekk sagesse am xel di xalaat ni ñuy déglu xalaatam am na koo xam ne jàngul alquran jàngul hadis jàngul dara waaye bu waxee li muy wax mënoo ko dindi ci alquran wala nga dindi ko ci hadis parce que wax bi buñ ko peesee si alquran dañ ko fay fekk mais buñ ko peesee ci hadis tamit dañ ko fay fekk pour ma bañ a sori mën naa jël ku mel ni Baye Tam ñun ñëpp ñu xam nañ bu waxee fii ba pare dañ wax ji yekk rafet est-ce que mos naa toog ci ba bangu daara jële ne qaala rasulullah mais bu waxee li muy wax na ko dindi ci alquran kazalika sama grand bële Modou Sylla léeg-léeg mu ne qul yaa ayyuhal kaafiruun laa a'budu maa ta'buduun wala antum aabiduuna maa a'bud wala ana aabidu lakum diinukum waliya diin foofu la ko kal lakum diinukum waliya bu ñu waxtaanee tuuti rek mu ne ma booy lakum diinukum waliya diin yéen daal seen diine ñun suñu diine waa xanaa ñun nekkuñ jullit ñun ñëpp suñu débat man ak fo man ak moom noonu lay demee bu buggee campé débat bi rek danaan lakum diinukum waliya diin waaye ay grand yu am xel lañ ay grand yu am xalaat lañ ma leen di bàyyi xel seen waxtaan lool sax parce que adduna yi tamit noonu la bul ne yow rek yàlla yow la yàlla dénk nga jàng tuuti rek foo ñëw rek ne alors xaala laaw xam nga moo tax duñ juba gars yi aussi oustaz yi dañuy eh, ñëw fekk benn waaye rek comme imam Malik nga ne ko lii baaxul hadis na nga ah. nit ki boo koy waar danga koy am foo koy jaaree genre Souleymane yi boo koy waar dafa am foo koy jaaree. comme ni Omar di def ak mom heure julli bu joté mu ne ko nañ julli ji nangam ndank ndank ndank ndank kon borom xel dañ koy baye xel ci ay xalaatam moo fu mu yàgg dëgg fa ndax ay fen lañ fay sutural. masla fu mu yag deug gëj fa ndax ay fen lañ fay sutural. masla baxna trop waye bu yagge rek deug dotul fa am am na fen yuñ bàyyi ci suuf te waxuñu ko chaque jour masla boroom xam-xam nga ne na nga ànd ak ñëpp kenn du la mere nekkoo ci dëgg kenn du la mere moom amul fen léeg-léeg nga wax ñu ne ah waxu fi dara loolu mooy li am waxu fi dara wax nañ ko yeneen bi waxu fi dara wax nañ ko yenent bi innahu la majnun kii dafa dof li muy wax xamu ko loolu yenent bi lañ ko wax kon ku dul yenent bi danañ la wax lu ne kooku moom il faut xam-xam yépp a xel waxoo fi dara dof nga moyow xool ko ni muy doxe kii daa xam dara kañ la fi jàng xanaa du barke Dembo Njaay loolu moom kenn ku nekk dañu la ko wax su fekkee ne danga nga nekk boroom xam-xam nag ne yooyu doo ko accepté bu yeboo nga dem toog fële te xam ne yow diine juddi dem fenn nit moom li nga nekk da ciy dëggu muy neex nga dëggu ci muy naqari nga dëggu ci parce que alxaqu yaalu wala la aley dëgg moom ca kaw rek dara du ko féetee kaw te dëgg mooy kan dëgg mooy yàlla jéggil yonent bi nga dem ba ci borom bi subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne moo ñu bind pourtant moom am nañu ko gëmul <laughs> yàlla am nañu ko gëmul te boo noyee moom la boo xoolee moom la boo doxee moom la boo déggee moom la boo ñàkkee feebar am wér gi yaram moom la nga wëlbate ko ne man gëw moo yàlla bu ko neexoon fi nga ko waxee la lay waaye nag idim baata ashqaha inna allaha aadilun ak a bàyyi la ci maanoom rek ngay def lu la neex te gëmoo ko kon maa taxta qubbati sama mawdi uraha képp ku asamaan ci tiim fii moom palaasu noppalu amu fi ku judd rek coono commencé na laxat xalaq na insaana fii kabadin coono rek kabad rek soo jogee ci lii rek dal ci waaye nag du nit ñi tamit nañuy naxante ñoom la borom xam-xam ba wa daarihim ma dumta fi daarihim wa ardihim dumta fi ardihim ma dumta xayyan fa daari nnaasa kullahum fa innaka fi daaril madaraat li feeg yaa ngi dund den naxal teg nit ñi ngay dundal seen jamono del naxante ñoom ndax yow fi nga nek këru naxante la këru masla la maa dumta li fek yaangi dundu del naxante nit ñi waye lu ñew rek nga ne ni lañ koy defé forcé te ngeen nek mbolo du dem kon nañuy waxtaan moy samanté ko kóllëre nañuy waxtaan suñu waxtaanee nak danañ jubo إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين gis nga ñàkk a sàmm kóllëre dalay yóbbu ci nga rëy te rëy baaxul rëy baaxul alkibriya u ridaa'i wa man naazaani xasaftu fu fi naari wala ubaali xam-xam boo xoolee niñ ko maasee dañ ko maas ci suuf pour nga am xam-xam fo nga soufé parce que baat bi sax dañ ko mass ci souf pour nga am kom kom fo nga soufé rina parce que baat bi sax dañ ko mass ci ko pour nga am alal sax da nga wara soufé boudé bu dee safaan bi nak boko défé yalla tek la nga ñak bo réé yalla indi la jat bu mbekkoor ñàkk am dara yalla ñu yalla musal ci réé parce que kóllëre gi nga xam ne moom lañ faslante suñ diggante ak suñ borom loolu bokku ci pour ñu dox tuuti parce que jataay bi dafa mën na gën a gàtt sax ndax liñ fi wax rek daanaka doy na Pyari. Wow. ci kaw ne ko damaa dégg ne yónnante nga mu ne ko waaw mu ne ko yónnante day am preuve damaa bëgg nga woon ma preuve bay wane ne yow yónnante nga mu ne ko loo bëgg comme preuve mu ne ko ñi ngi ci saan mu ne ko waaw mu ne ko jant bi damaa bëgg nga suuxal ko mu ko lol kese nga bëgg mu ko def na benen benen bi ci top dama bëgg nga génne wër wi do ca yam nga xar ko mu ñu wuy ci la benen bi ci top soo ma li nekk sama xel limay xalaat ma gëm na yalla la yoni waye kenn du Muhammad tekpa, pa tegat pa yéeg tok yu ñuy wax hajar sahabi xabis nga xamne ne fala maamam yegon kérok ba Abraha di tok ci Kaaba ga dal di julli ñaar rak talal yalla ay loxom kurel gi ñuy wax Jibril and ak fukki junni malaaka ak ñaar na cëpp and ak fukki junni malaaka ak ñaar ni cëpp Asrafil Azrail ku nekk ànd fukki junni malaaka ak ñaar Jibril la Seydina Muhammad ne ko yàlla ma yónni yàlla ne jant bi yaa tax mu bind ko weer wi yaa tax mu bind ko nit ñi jinne yaa tax mu bind leen yàlla ne nga wax loo wax mu def Seydina Muhammad taxaw fi mu taxaw daal di joxoñ jant ba jant bi daal di suuf mu lëndëm crise kenn mënut a gis sa borom ah, waa ji ne ko buur ne ko benn ñëw na de desaat na beneen dama bëgg nga Muhammad daal di joxe weer wi weer wi na mu ne ko xar ko rasulullah daal di joxe ñaari weer wi weer wi daal di xar daal di nekk ñaari gaal ñëw ba tolloog bopp rasulullah ne ko ashhadu la laa ilaha illallah wa annaka rasulullah buur bi ne ko ñaar ñëw na benn donga des soo ma ko waxee ma tuub dugg ci diine islam keroog laay gëm na yàlla yónni Seydina Muhammad na ko yow lenn dong mooy sa problème dangaa yor benn doom ji jigéen joo xam ne yaa ngi ko bàyyi ca pale ba sa doom ji ba mu juddoo ba léegi déggul ba mu juddoo ba léegi mënut a gis ba mu juddoo ba léegi mënut a wax ba mu juddoo ba léegi loxo sax amu ko Habib ibn Malik ne ashhadu an laa wa annaka rasuulullaah Seydina na ko kaay dinaa la ci dollil beneen buuñaa fii ma taxaw di wax ak yow yàlla xaaj na suma jëmm ji ñaari xaaj dem naa pale ba gis naa xale ba raay naa bopp xale ba yàlla delloo na ko ay cëram mat na seede na seede na ne yàllaay gëm na maay Muhammadu Rasulullahi Habib ibn Malik ne képp ko ànd ak man yëkkate sa ñaari loxo seede na Seydina Muhammad yàlla ko yónne ku sopp sang-sang yi géeru géer ñi garme gararari lingeer yi lingeer yi capitaine yi capitaine yi caporal caporal yi général yi général yi chef yi chef yi imaam yi imaam yi yaakaaru jaam ñi sangaat naag laaxira ki juddoo Makka gàddaaye Makka ñu denc ko Madinatul Munawwara borom bareera or ba Madina góoru Xadija naar raayta ana ñu topp muhammad rasulullah ne leen ni sa loxo ba tëgg rasulillah elam annahu rasulullah rabbul alamin la wax sallallahu anhu lolu nak taranga juko yalla may la nga xamne ne tuduna pa jibril sambu ci wayam yi ngir dawal gim ko don dawal lolu cer bu reey la ànd na ak ñun ak suñu dom yi nga xamne ak suñu wolere yi nga xamne ñoy sama guddi ñoy sama becc ñoy sama jor ñoy sama chamoy muy xale yi ma ànd ak eh, ngeen xam leen miin leen bu baax ñu nekkoon ak yéen eh, jarul may jaar ci tur yi ndax xam ngeen leen yéen ñoom ñëpp fekk fii suñuy bàjjan ak suñuy mag suñuy rak suñuy mbokk ci deret comme ni ko imaam Malik waxee léegi di am kontante bu baax ci loolu ndax boo ñëwee foo xam ne mu leer la na la fii nga toog ci say digg mbokk nga toog da ngay gën a yaatu gën a fiix sa xelit day gën a dal ñi ay mbokk ci ni ko alquran waxee dëggal neen ko ci wax dëggal ko ci jëf ñu ngi leen di sant di leen di gërëm ci taxawaay yiñ mën a tudd fii ak yiñ mënta tudd yépp ñu ngi leen ci sant ñu ngi leen ciy gërëm di leen di ñaanal yàlla yàlla maye kenn ku nekk ci yéen fan bu gudd ak wér ak fajog aajo ak njéggal ci bàkkaar ci di jiitu ak di des ci barke yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yi nga xam ne moo tax ñu tànt tànt bii di nuyu imaam ci sa buntu imaam Malick John ñu ngi lay nuyu di nuyu ci sa buntu imaam Kabiru nga xam ne wax ngeen ne ngant moo tax ñëwut waaye ci buntam ñu ngi nuyu mboole maguwaa dëkk bi góor ak jigéen di nuyu président Mamadou di niyu imaam Malick seen mi nga xam ne moo amee woon microphone central bi buñ ko nuyoo nuyu neen waa daaira bi yëpp nuyu waa Ndofane di nuyu boroom dëkk moodu jag nga xam ne moom moo ñuy dalal fii di ko ñaanal yàlla yen gi yàlla nay oyof daa iman waxtu bu nekk di oyof ci sa kaw waaye di nuyu eh, waa dëkk bi yëpp góor ak jigéen nax eh, ñëpp bu ma sañoon kenn ku nekk danaa jaar ci turam tudd ko bi moom tudd na ñëpp ndax yëg na ci dalal biñ ma dalal fii ci dëkk bi ci uuf giñ ma uuf jàppalante gi ñuy man ci lu feeñ ak ci lu nëpp ci gërëm bu baax sant di gërëm suñu Fall nga xam ne ah, daje neen ay yoon yoon ci jotaay yi nga xam ne yàlla rek moo ko sos ñu ngi leen di sant di leen di gërëm ci taxawaay bi ak itte bi nga xam ne yeneen koy def ci gàmm gi jotaay ngoon bi yàlla def na fekkewuñ ko ndax dafa amoon beneen jotaay it boo xam ne mu ngi ñu doon xaar foofu ca Madina muy jotaay alxaaj Ousseynou Niass muy papa Ousseynou di coob rek yàlla gi nga xam ne tay la woon bësam bi ak tamit coono yu toggante nekkoon ci biti ba agsi yooyu yépp waaye dañoo dagg suñu yoon dagg suñuy tukki ne bés bi ak lu mën di xew bëgg neen koo fekkee ba pare doog a continuer ci itte yi nga xam ne moo ñu taxoon a jug moo tax ñu dagg suñuy tukki ndax dëgg-dëgg kóllëre nit bu ko mënta sàmm mooy na mënoo sàmm dara tamit nit ku la yëg moo la sonal te fii muy dëkk bii di Ndofaan dëgg-dëgg ràññeewuma ci muy góor muy jigéen lu mooy ne ñépp dañoo fasanteeg ñun kóllëre ku ma ci gis ci saafuwanteeg man dangay foog na ne kii laa gën a am ak ca kaneen waaye fekk na ñoom ñépp a yem ci man ndax mbaax ak yaatu gi yaatu ak oyef giñ oyef ak yegg giñ mëna yegg doomi aadama lolu nak ñu koy sédé fi ci mbolo mi di leen ci gëreem di leen ci ñaanal yàlla min qabliha tibda fi dilali wa fi mustawdain xaydi yusafu lwaraku fama batta albilada la basharun anta wala mudatun wala alaqu mutaharun tarkabu safina waqad الجم نسرا وله الغرق وردت نار الخليل مكتتما تجول فيها ولست تحترق تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى علم بدا طبق حتى احتوى بيتك المهيمن من خلد فعليا تحت النطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق ونحن فيها كالضياء وفي النور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 سر الحق بالحق ولا ديلا صراطك المستقيم وعلى متى يبدو في داجي البهيم جبينه يحمل مصباحي دجى المتوقد فمن كان أو من ذا يكون كأحمد نظاما لحق أو نكالا لملحد أغر عليه بالنبوة خاتم من الله بران يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن والشدو وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد تهدي به الناقة الأدماء معتجرا بالبرد كالبدر جل ليلة الظلم وفي أعطافيه أو أثناء بردته ما يعلم الله من دين ومن كرم إن الرسول لسيف يصدع به مهند من سيوف الله مسؤول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلهب به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعمت دعة النصارى في نبيهم واحكم بما شئت عن فيه واحتكم وانسب إلى ذاتي ما شئت من شرف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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروش مملكتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين عيان خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيك وترضى بها عنا وعن والدينا يا رب العالمين لي سادة من عزهم أقدامهم فوق الجباه إن لم أكن منهم فلي بحبهم عز وجاه وبجاههم وبعزهم طيب لنا عيش الحياة واختم لنا بالخير يا من لا لنا رب سوى تنئة الربيع بمدحة الشفيع المنطق البديع أبغي بها مؤملي بمرأة الشبع بمنطق البديع أبغي بها مؤملي يا ربنا صل على خير لنا ممن على على السماوات العلا بإذن ربي العلي أهلا بشاد مولدي شر العلا والسددي شر النبي أحمدي شر ربيع الأولي بمرحتي وشفيعي وانتفي إذ كان كالربيعي للأرض والشفيعي بكل خاف معضلي ربيعي بمن أتي شفيعي لا تقلب بديعي أهلا بشار الفرح شاردها بالترح وفخرنا والمرح شر النبي الأفضل بمرحته سريا بمن تقى شهر الفلاح والسرور شهر به ساد الدهور موشح بين الشهور متوج مكلل ربي يا بمرأتي صيرا بمتقنا مذيعا أخذها محمدي ألم بشار الفاتح إغلاق كون الفاتح من خص بالفواتح وحاز خاتم الملل جميعة يعني ربيعي بمرأتي صيرا بمتقنا مذيعا أهلا بالشاد الخاتم شر نبي قاسم وفاتح وخاتم وآخر وأول جميعة يعني ربيعي بمرحتي صبيعي بمنتقب البديعي أهلا بالشار الناصري للحق شار الأمري بالعرف شار الظاهري بكل واصف أكمل تبعة ربي يعني بديعي بمنطقنا أهلا بشاد الهادي بمنهجي رشادي وقائد وحادي إلى الطريق الأمثلي تبعته ربيعي بمرحتي سريعي دائما محمدي اهلا بشار سيدي لاحمر واسود من حاز سبق سددي يوم اعتذار رسلي بها وقد كفاها كلها اعباءها وكلها بقوله انا لها عند اجتدار العاد الوجل بمرحتي صيعي بمنطق لا بديعي أقبها محمدي فيا لها من خطة جوابه في الحطة من ربه سبت عطى واشفع لدينا تقبلي بمرحتي صيعي بمنطق لا بديعي أقبها محمدي أهلا بشار المصطفى صفا صفوة كل مصطفى وخير عبد قد صفى من ملك أو مرسل جامعة ربيعي بمرحة صبيعي بمن تقلى بديعي عقبها محمدي والشهر خير الخلق شهر جميل الخلق شهر عظيم الخلق في المحكم المنزل جامعة ربيعي بمرحة صبيعي بمن تطلى بديعي حق بها محمدي شعر الذي أثاره إله واختاره من حبه خيره عند انقضاء الأجل جميعة ربيعي بمرحتي صديعي بمن تطلى بديعي أقبها وأمري شر الذي مساء قاب ومن له الحسن فقط عليه جبريل هباب بكل نور معتلي لمرحتي صديعي بمنطق الأبديعي أقبها مأملي أهلا بليل 12 في ويوم لغر وطيب ذلك السحر ونور أفقه الجليل بمرحتي صديعي بمن تبتلى بديعي أقبها محمدي أهلا بكل ما ظهر من خارقي يعيد فكر في كرافع البصر إلى مقامي العلي تنعة ربيعي بمرحتي صديعي بمن تبتلى بديعي عقبها مؤمري وما رآت من عجاب آمنة حين نصب سبابة ثم اقترى بسجدة المبتهلين محتي صبيعي بمن أذيعي أقم يا محمدي كما تدل الزهر كما ترى القصر في وحل الكسر بالصنم المجدل تبعة ربيعي بمنحتي صديعي بمن أذيعي وغاضت البحار وجفت الانهار من اجله والنار قد فيها من خجله بمرحتي صديعة بمتة مديعة أخي بها محمدي وجنهم في نكدي لرميها بالرصد وعزلها عن مقعدي من أجل خير الرسل تنعة ربيعي بمرحتي السيئة بمنطقنا مديع أخي بها محمدي تمنى ذو الإفضال بأفضل الرجال في أفضل الليالي بالبلد المفضل ربيع بمرحتي صديعي ألم بيوم عيدي ما مثله من عيدي قد حل في المولود في محل زحلي هنيئة ديعي بمرحتي صيعي بمن تقنا مديعي أخي بها مأمري وسابع الولادة وما أتاه السادة من وفق ما أراد إله في الأزل يا ربيعي بمنحة وصديعي بمنطق مبيعي أقبها مهمري أهلا بيوم سمي محمدا خير اسمي رمزا لمعنى الاسم من جدي لينجلي دنيعة ربيعي بمنحة صديعي بمنطق مبيعي أقبها مهمري بحمد له ولينا له والآخرين فكان ذا يقينا من الكريم المفضل بمنحتي وصديعي بمنطق لا بديع أقبها مأملي أهلا بيوم اثنين مولد الثاني اثنين مبعد سر الكون مقدمي المبجلي فديعة ربيعي بمنحتي

لمن حوى الفخار وغفرة من منزلي سمعت ربيعي بمرأتي صبيا بمن تكب مليع بها محمدي أكرم بالشهر نيسان مولد خير إنسان قدوة آل الإحسان والكامل المكمل يا ربي لمن حجي صغيري لمن تقل منيعي أقل يا محمدي قد تمت الليالي في عدة الليالي بزينة المعالي كالجوهر المفصل يا ربي لمن حجي تقلا بديعي الربيع بمدحة الشفيع بالمنطق البديع أبغي بها محمد تنئة الربيع بمدحة صي بها أبق بها الجمع به يوما ونيل قربه وفضل بربه ومن رضاه أملي والختم لي بالحسنى والجمع لي في الحسنى لدى المقر الأسنى مع الرفيق الأفضل جمعته ربيعي بملحتي صديا لما تقلامني بها مأمري وكلنا وليا وناصرا حفيا لا نختشي غير الهوية بجاي عبدك العلي بمنحة صفيعي بمن لا مليع أقبها محمد صلى وسلم الإله عليه أفضل الصلاة ما دام كونه الإله من أبد لأزل ربيعة ربيعي بمنحتي صفيعي بمنطق لا مليع وآله وصحبه وزوجه وحزبه وكل آل حبه مع السلام الأكمل جايم يا إلهي اغفر لناظمها واسمح لقارئها وللذي حضر اللهم بخفي اللطف وكفيهم نوائب الدار مع آفاته الكدرة أجب دعاءهم وعجل بالذي طلبوه بجاي أحمد مع أصحابه الخيرة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق هادينا سبقنا صراط بلا ولا هادينا صراطك المستقيم وعلى قدر مقدار عظيم ين وي بنت كلام يا والله همزية رك إن شاء الله tey incha allahu tax awma sikk sàkk ne yàlla dana ko def ndax ñii seen waay jur ci xisa gàtt ànd ak bàyyi ca makkatal mukarrama mu di ko liggéeyal di ko liggéeyal ba benn jamono ñu daje ci makkatal mukarrama bàyyi tas benn kaamil alquran am ñum jox ñu ñaanal ko yàlla mu bokkoon ca mbooloo mi doon ñaan yàlla ñii mën a leen dem leen euh, arafa ngeen taxaw ngeen ñaan ñii mën a leen dem leen zam-zam ñii ku nekk rek mu am fam la yebal na la nañ fa taxaw ñii maqaam Ibrahim ku nekk rek mun a la taxawal nga ñaanal ma yàlla ci soxla nangam ñoom ñépp ñu ñaan ba ca euh, ëllëg sa mu dajeeg El Hadj muy papaas mu lëng ko ñuy doxante ci xaramum Mekki mu ne ko man daal am naa soxla boo xam ne. Euh, boobu ba léegi daal maa ngi koy séentu waaye jotaguma ci te bëgg naa nga ñaanal ma yàlla soxla boobu yàlla fajal ma ko ñun ñëpp xam nañ na bàyyi radiyallahu anhu soxla bu mu am ci yàlla yàlla dana ko faj ndax waxoon na ci wayam yo ne maa qattu ubtu xaa'iban min rabbi bal kullama ubtu shakartu aw bi musuma tàll sama loxo ci yàlla di ko ñaan mu gàntal ma waaye nag dafa am booba lu mu bëggoon a junj rek mu dem ci diggante tusbaar ak tàkkusaan tàqali ko ak alaaj Abdoulaye ñu dajewaat ci tàkkusaan gi mu lëngaat ko mu ne ko alaaji soxla bi ma la doon ñaan yàlla yàlla fajal na ma ko alaaj Abdoulaye gestu ne ko lépp lu la yàlla may nangul naa la ko waaye bëgg naa yow it nga nangul ma ne yàlla it may na ma ijaabatu duaa yi ñaan gu nangu it yàlla may na ma bàyyi na ko nangul naa la ci maqaama boobu noonu nag laa bëgg ñoom ñu dëggu ci ñaanal yàlla mbooloo mi yàlla faj seeni aajo ñu loolu nag jox leen addiya ji ñoom ñu ñaanal mbooloo mi yàlla faj seeni aajo ci barke guddig yonent ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jox ko cheikh bukaar bi Amém. Amém.